maaleykum salaam Babacar euh, xibaar yi li ci gën a euh, muy cadeau fin d'année pour liggéeykat yi ci privé bi euh, seen i yoko dina yokk lu ko dalee wi di ñëw di janvier 2020 coow laa ngi wéy ci tolluwaay kom-kom réew mi député yu position bi gis ne suñu kom-kom mi ngi ci jafe-jafe di lu ministre bi yor kom-kom réew mi Amadou Hott weddi démb ci assemblée nationale bànqaas yu syndicat jàngalekat yi di SAEMS e ak CUSEMS e ci diwaanu Dakar boole seen doole ci xeex bi daañu bank seen loxo ci liggéey bi tey ji laataa ñuy sóobu ci grève suba li ñuy sàkku na mooy gi fay leen ndàmpaay ci examen daw yi waa ngaleel bango ca ndar eh, di yuuxu wàllu gannaaw eh, bi ñu tàmbaliwaatee toj seen i kër ñu xam ne ne jël seeni suuf képp eh, moo waral nag nguur gi di leen di toj kër yooyu dañ sa xibaaru tàggat yaram chronique culture bi jeexale ak li ci yenn kaay mu nekk li gën a fas ci xibaar yi ne su ni ci ay faram mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi dañ koy door ak lakk gu ñu wax ne nag dafa am nag euh, tey jii ci suba gi euh, ca VCN voie de contournement nord ca Thiès euh, waaye nag daanaka ci àll la ab cigarette bu fa sànni ñax yi nag daal di tàkk amul nag genn loraange bu ñu sukkandiku ci sunu ndaw lañ toggal ca Thiès di Cheikh Anta ak RFM kumpa jeex na. wax ci wàllum payoor yi war a yokk mu soxal nag ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi nekk ci privé bi yokk boobu nag euh, ñaari wàll la euh, lu toll ci 8 maanaam téeméer boo jël juróom euh, yokk ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci première ba troisième catégorie beneen bi nag jëm ci 5 pour cent di téeméer boo jël juróom yi di 5 pour cent ci ñi nga xam te ne yi bokk ci quatrième ba huitième catégorie loolu nag ñi nga xam te ne ñooy kuréel yi ëmb njaatige liggéeykat yi ak seen syndicat liggéeykat yi daal nañ ci juboo gannaaw waxtaan yoo xamante ne seqoon nañ ko euh, kuréel yi ci d'accord nag euh, ci wàllum euh, patronat bi di CNP ak CNES liggéey liggéeykat yi nag bokk nañ ci di syndicat yi di sa CSA UNSAS ak s FC fekkee nag salaire dina yokk ñi ñoom ba léegi jotaguñu seen i payoor di liggéey liggéeykat yu Dakar dem dikk tey ji fukki fan ak benn di 11 décembre ba léegi nag jotaguñu seen payoor weer wi ñu génn di weeru novembre tax nag ñi yuuxu di wax nag ne bëgg nañ xam nan moo waral lu fay leen seen i payoor ñoom liggéeykat yi Dakar dem dikk ci eh, ni mu gën a gaawee wax eh, ci wàllum eh, koom-koom wàllum nag tolluwaayu réew mi ci koom-koom bi jafe-jafe yi doon wax dafa am ci wàllum koom-koom loolu yëpp bokkoon lu ñu doon waxtaanee démb ci assemblée nationale nag noonu tamit wàllum xaalis mi nga xam te ne réew Afrique sow jant dañ ko war a bokk waaye nag ministre bi ñu denk wàllu koom mi ngi dalal xel yi nee na nag wax ci wàllum jafe-jafe yu koom mi am dara mu ci démb la la Amadou Hott ne woon ci kanamu député yi ngir rawatina nag euh, càmbaru budget bi nga xam te ne moom la ministère am war a liggéey caat mii di ñëw teewoon na fa Oumar Mbow député yu faré ca ku jigi yépp dañuy nakarlu li ñuy woowee koom-koom bu jànnaxe ousmane sonko mamadou diop de croix mamadou lamine diallo ak ñeneen ci gis-gis député bu tekki nguuru sénégal dafa war a bàyyi france demal boppam le ministre diallo a été courageux il a commencé à parler monsieur diallo moom am na fit ne CFA dafa amal la njëriñ askan ni Macky Sall bëgg a doxalee koom réew mi du dem loolu bu musa dem na ma wax ñaata lay france di gagné bu dugalee benn dërëm ci réew mi nous dire ce que la France gagne dans cette opération-là également. ba ñu ci Abdou Mbow mouvement bu tekki nand méthode bu njiitu réew mi taxawal ngir yóbbu Foussore, koom réew fu sore ndaxte dafa ne Mamadou Lamine Diallo jamono daf ko dépassé. ñoom bi ñuy économie boobu amagul sax ordinateur dactylographie lañ daan donc nous dañu war a ndaw ñi ay nit ñu bees lañ am xam-xam. njiitu parti Pastef japp ne lenn rek moo tere comme comme réew mi sukkaleku mooy franc fa vous ne pourrez jamais avoir des entreprises des am ay entreprises yu mag yu jërënte bag ak yeneen entreprises yu nekk ci aduna bi tant que gëmuñu suñu bopp génn ci lii di franc fa amul monnaie bu gën a baax franc fa di tontu jëwriñ bi ñu dénk comme koom bi bi ñu sukkandikoo ci Amadou Hott réew France partenaire bu baax la. franc fa am na ay yu bëri bëri parce que dëkk nga xam ne amuñu monnaie bu stable comme ñun sunu monnaie bu nu am seen dëkk seen économie dafa am ay jafe-jafe. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. huit heures tegal juróomi minute wéy ci xibaar yi wax ci leneen jëm ci wàllum njàng mi ak euh, nag CUSEMS euh, e ak SAEMS e di ñaari syndicat yu nekk ci njàng mi ñoom nag euh, tey jii daañu tàmbali ak yëngu-yëngal tey dañu amal débrayage bu neuf heures jotee ah, buñ ci noppee suba ci alxames yi ñu sóobu ci grève li ñuy sàkku nag mooy ngur gi daal leen di fay ndàmpaay jëm ci seen i examen yi nga xam te ne moom la ñu génn ah, ba léegi nag jotaguñ ko dañ ciy déglu Amadou Ba moom nag moo jiite bànqaasu CUSEMS nekk ca Géejawaay ñu déglu ko ci micro Saliou Sow mbir mi daal mooy mbirum grève yi nañ koy continuer parce que état bi lépp loo xam ne waxoon na ko ci wàllu examen yi defu dara moo tax nag le CSEMS e bu nekk ci région Dakar yëpp ak waa si e ñi bokk ci Pikine ak Géejawaay ñooy banqal seen mbirum jàngale à 9h ak le jeudi ñu ne grève te loolu nag day wane encore une fois que mbirum parents yi dañ ci taxaw ñu wax ci parce que nguur gi lépp lu mu waxante woon dara ci

wareefam. mu nekkoon Amadou Baxa jite bànqaasu CUSEMS ba uh, nekk ci géejawaay ñoom ak uh, kon waa SAEMS e lëkkaloo uh, tey jii war a amal débrayage ak grève ngir seen i indemnité déplacement ci examen daaw yi wax ci campagne njaayum gerte mi biñ ko tàmbalee léegi kon def na semaine talaata ba la ñu weesu ñett fan ci weeru décembre lañ ko tàmbali woon waaye nag ay jafe-jafe moom la nag ñi nga xam ni ñooy béykat yi nemmeeku ca diwaanu Tamba nee nañ nag. koppar Mo moo yembagul rax si yi tamit am na ñoo xamante ne daal ba léegi gis ñu ko jënd seenu gerte di loo xamante ne euh, jural na leen ni jafe-jafe leeral yeeg Moussa Omar Gueye ci diwaanu Tambacounda benn ay bés ginnaaw bi ñu tàmbalee campagne nationale njaayam jënd ci wàllum gerte gi gis nañ ni producteur opérateur yi nekk fii ci diwaanu Tambacounda amul benn seko boo xam ne liggéey bi tàmbali na loolu nag li ko waral moom mooy koppar dafa amagul Pape Bande Dieye moom mooy président régional producteur gerte yi nekk fii ci Tamba ñoo ngi su tool yi di naaf ak di bàcc léegi nag tàmbali nañu bees toujours région Tamba ak région sud bi yëpp à partir du 10 jëm le 15 la ñuy tàmbali gerte daan day jóge su tool bi ñëw su seko bi tey jii seko yi ñoo ngi defar ñoo ngi puudar poosé nañu bascule yi lu ñuy xaar nag benn su nguur gi lay doon ñaar su banque bi banque agricole toujours damay ne état du Sénégal daf ko war a dooleel tey su seko yi ibbiwul xaalis amu fa gerte gi su demee yeneen yàqu-yàqu mun na fa am ñoom ñoo amoon ay contrat doon bay jiw ñooñu ñoo ngi indi nit yaa ngi leen di fay nank nank nawet bi am na fu mu bon am na fu mu baax fii tey Tamba région Tamba am nañu gerte facture yi nga xamee ne daaw mois de juin ak juillet joxe nañ ko jiw mu fay facture yooyu mais su dee loolu amul ñu jëm ba vingt cinq vingt six décembre gisuñu dara campagne bi dina doy waar lool parce que loolu musiba lay indi su filière bi. bu ñu xoolee nag ci département bi am na ay baana baana yoo xam ne ñu ngi dem ci luuma yi. daal di fay fekk gerte gi di koy mbapat di koy yóbbu noonu nag mu nekk li nga xam ne bu fekkente ni jëluñu ci ay saafara ci kàddu kii di Pape Bande Dièye bu ñu mayul ëllëg si biir dina indi ay jiixi jaaxa rawati nag ñeel ñi nga xam ne ñoom ñooy béykatu gerte yi waaye itim ba tey ñi nga xam ne ñoo ciy yëngu ci wàllum opérateurs yi ak producteurs yi Moussa mar gi Tambacounda rajo Futur Média. Moussa Omar Gueye bu ñu jógee Tamba dañuy dem ba Eh, Ndar ah, foofa nag eh, ñu ngi di eh, gouverneur ba daal nay tàmbaliwaat toj gi ñuy toj ay kër yu nekk ca booru aérodrome ba ca booru Ngalel Bango di loo xam te ne met na lool ñi nga xam te ne ñoom la soxal ñoom ñooñu nag ne dara waralu ko lu may nguur gi def bëgg teg loxo seen suuf ndax gaz bañ foore exploité ak pétrole bi Mohamed Nabi Silla ñaareelu pàcc opération yëkkati ak daaneel ay kër yi nekkoon ci site ancienne piste aéroport bile te fare ci Ngalel ak Bango Don doon luy wey ci njàqare askan wi lee Ibrahima Fall porte-parole du collectif de Galel Nord Extension Bango Sud tej nañu ay këru jambour ñëwaat nañu tay encore ñaari weer après toj bu wésu ba ñi ngi tojaat te kër yi ñi toj ñi seen ay borom ngi ci biir yobbu nañu seen ay genn wal kër ndax njabot gaangi ci biir ño taxaw suñu ay bët ko may seen ay njabot ngi ci biir ay doomu aadama la nañu nak toj nak len do nga ko waral ndax hôpital ken du ko defar ci wetu aéroport international mënta nek caserne sapeur pompier biñu wax du deug soxna si di khadiba di deugal gulup gu lu upp ñaari junne ci ay njaboot ne ñu ñëwoon ci première fois toj ay kër ñu yakani ci lañu yam lima gëna jaaxal ci lool dafa am lu gouverneur dafa ni won mom tojul kër gunu dekk tay ay kër la taxaw amna ndaw so xamni binta ñun ñoko don doon téye nga neñu toj ta mo dekk ci bir am ñeneen ño xamni ño nga leen wax ñu genn donc lan mooy tojuma kër xanaa sénégalais yi ñoom amuñu droit am kër question boobu laay posé gouverneur ak maire. ñoom ñu njort ni gaz ak pétrole bi ñu war ci ndar moo leen indil musiba bu ni mel. ndar dafa changé xaru kanam ndar dañ fi gis pétrole ci géej ndar dañ fi gis gaz suñu kilifa yi jiite dëkk bi leen na leen soxal préparel tubaab yi ñëw di jënd si pétrole bi fu leen dalal jam ñaajo deux lañ fiy wut ñuy taafantoo hôpital di taafantoo caserne sapeur pompier dara du ci dëgg. tey ñuy woo bépp leader d'opinion société civile ak kilifa yi ngànk réew mi ngir ñu am saafara laata musiba bu ni mel gën a ci njaboot yi lee RFM ci Ndangeej Mohamed Nabi Sila. Mohamed Nabi Sila lañuy des sax foofu ca diwaanu Ndax dem ba Richard Toll wax ci jàngoro sew dañ koy euh, di faral li juri Richard Toll tax ba ay ngi ci wi ñu ko Mamadou Diagne. ngir gën a xeex li ñu duppee maladie tropicale négligée centre de santé bu Richard Toll daat nay dugal loxoom ci xeex bi ñu nekk ay feebar yoo xam ne ñu ngi def ay jéeye ci biir Richard Toll lawatina lii di bilharziose bi bu ñu sukkandikoo ci kii di médecin chef centre de santé bi di Koumba Ndofène Diouf te mi ngi xamal ne li waral loolu mooy environnement dëkk bi waaye nag comportement yi nga xam ne askan wi am nañu ko. li ñu gën a sonal fii. mooy bilharziose bi parce que ñaari fànn am na bilharziose urinaire bi ak bilharziose intestinale bi donc ñaari feebar yooyu yu am la ci Richard Toll parce que dex bi moo ñu wër canaux d'irrigation yi ñoo ñu wër te loolu yëpp day favoriser transmission feebar boobu donc li ñuy ñaan mooy gaa population yi mën nañ leen sensibiliser mais aussi ñoom ñu jël sensibilisation boobu aussi jëfee ko parce que loolu moo am solo. ngir xeex boobu gën a yomb ki jiite programme de santé Écosse di docteur muntaga Dia daal na siy dugal loxoom daal di teg benn plan d'action. dañu am plan d'action ngir def plaidoyer bokk ko ak ñu jiite collectivités territoriales yi ak euh, autorité administrative yi ak leader communautaire yi ak président ñi jité ay organisation communautaire de base ñëpp ngir xeex bi ñuy xeex jangoro yoy ñu tuddee maladie tropicale négligée ñu mën ci def lépp lu nga xamante ne lii ressource la ndax li ñu sétlu modi di réew mi gaa mu ngi lu ci xeex ga jangoro yoy waye liñ ci wara def ci alal dafa guñ ko ci. mu nekk plan d'action bo xam dir bi dana toll ci ñett weer te ñi ngi concerné fukki commune yu nekk ci biir Sénégal juróom-benn nekk si biir Dakar ñaari yi seen Ndar yeneen ñaar yi si région bu Kaolack Mamadou Diagne Richard Toll rajo Futur Média. Mamadou Diagne ay bés yi ñu jagleel euh, xeex fitna yi jigéen ñi ak seen ak ak yelleef di séjour d' activisme daal nañ koy jeexal nag euh, démb ñu tëjee ko nag ci tëngeej ak benn ndaje waxtaan euh, li ñu ci doon waxtaan di wàllum siif yi di viol yi ci loolu nag ki nga xamante ni mooy secrétaire général bu AGS di mbootaay gi ëmb jigéen juriste ci Sénégal gis nañ lu weesu daan yi dañoo war di ñaax askan wi su ko defee ñu dugal leen ci xeex bi mën a am résultat yi ñu ci bëgg dañ koy déglu moom docteur Zeynab Kane ci micro di fi waxtaanee lu am am solo mooy loo xam ne nan la ñuy boolee suñu xalaat maanaam solution ay pexe pour jëlee fi li nga xam ne moom mooy siif ndax xam nañ lu def waxu waaye lu ay di jàmbat jàpp nañ ne teg ay daan baax na lool waaye daani kese taxul ba siif bu jóge ñu ne kon nañ koy wax xoddeeku balaa ngay lakkale waxtaan ak kan waxtaan ak yaay yi waxtaan ak papa yi waxtaan ak doom yi waxtaan ak xale góor yi xale ji waxtaan ak askan bi yëpp ne leen a na loo xam ne ku kon nag mbir mi ci biir askan bi la nekk nañu delluwaat ci biir askan bi ne leen siif nii la mel siif lii la siif lii mooy conséquence am dégg ngeen bi li mu wax ci li nga xam ne moom la mën mën a jural doomu aadama ñu ne kon kat ne askan bi yéen lii nga xam ne moom mooy siif campagne bi mu ngi tëj waaye nañu boole suñu doolee solution concertée waxtaane pexe yi nga xam ne siif dina fi wàññeeku waaye siif dina fi sax mën a jóge ba ku ci nekk tey doo ko waxati ndax kenn muccul xale bu góor muccul xale bu jigéen muccul dégg ngeen ko sànq jeeg buy sëy sax muccul mu euh, Zainab Kan Zainab Zeynab Kane di secrétaire général bu AGS di mbootaay gi ëmb jigéen ñi ci Sénégal gannaaw jigéen ñi ñu wax ci xale yi ñu faral di di fitnaal naka non tam di leen di teel a maye wala bokk sax ñu bañ a am kayitu juddu ngir xeex lu ñu mel nag ab ndaje waxtaan amaloon nañ ko démb ci banlieue bi lépp jëm ci fexe daal ba gën a jàppandil nekkinu xale yi fii ci réew mi Salif ñu ko fu nekk daanaka ci réew mi ci fukk ak juróomi département ci Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi di wax waxtaan fitnal gi leen fitnal ñom xalé xale bokku nañu ci fukk juroom ñetti junni gune yi nga xamanteni dañu amon jafé jafé ak seen waa kër wala kenn binduloon woon ci état civil bu ba ñu daan say aduna lolu daaw la woon ñi def lolu moy wa coordination nationale association enfant yi nga xamanteni yi dañ leen di wala di leen tek ay fitna secrétaire général bi di Khady Diop moo ñu ko wax bi mujjé def suñu bilan ci 2018 bi jappalé lañ 18000 xalé xale yu nga xamanteni ni ñi état civil la ñi nga xamanteni ni dañu leen a insérer ci centre de formation yi ñi dañ leen appuyer nga xamanteni dañ nek enfant en rupture agriculture familiale 18 mille yu nga xamante jàppale nañ leen ngir ñu mën a dund dund bu mën a mucc ayib seen ak ak seen yelleef ñu leen koy respecteel ba mu mat sëkk am na lu ñuy code de l' boo xamante ni fii ñu ngi xaar kilifa réew mi doxal ko Sénégal ñu voté code de l' bi pour tamit euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk euh, ci situation taalibe yi mu changé ñi ngi liggéey tamit ci mariage des enfants sëy yu teel yi ëmb yu teel yi ak it ñàkki jàngi l'école bokk na ci liñ doon waxtaanee ci ndaje mi ñu amal ci stadium Amadou Barry li ko waral mooy ne xale yi nga xamante leen fitnaal dañ leen bëgg a def ñoom ñu xeexal seen bopp mbir mi li ki nga xamante ni moom mooy Kumba Seck moo jiite mouvement africain enfant ak jeunes travailleurs ci Sénégal. daf ñuy métti torop comme ñu gis benn xale ñu di ko maltraité comme ñu ngi nii tey jii ñu ngi organiser pour ñu mën a a a Mauritanie ak it Gambie di dund ñi ko xamal mooy seen waa dëkk yi nga xamante ni teewoon nañ ci ndaje mi su Sow Guédiawaye ngir rajo Futurs Médias yegg si ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne seen Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay alaaji njógu jeen. wàllum football la ñuy dooree ca Tugal ak Ligue des champions euh, tey nag la ñuy tëj match de poule yi ak match yu mujj yi fi mu toll nag li leer moo di ne am na ñeenti doomu Sénégal yoo xam ne qualifié nañ ci huitième de finale yi muy Sadio Mané kolibal yi Moussa Wagué ak. Euh, Idriss Gana Gueye voilà mi ngi noonu kon mbok Sadio Mané na nga ko waxee ànd nag Liverpool dal di euh, qualifié ci li nga xam te ne moo di ñu amee ndam niki démb ca Autriche seen digg ak Red Bull Salzbourg kii di Sadio Mané jot naa joxe sax li nga xam ne moo di passe décisive kii di Naby Keita di doomu Guinée jot a dugal ci mujjantal googu la jongante sax waa Liverpool ñoo ca daal di nga xamante ni ñeen yeneen doomu Sénégal moo di Moussa Wagué ànd seeg ñi nga xam te ñu di waa FC Barcelone moom sax démb jot naa football ba match bi jeex ci mujjantal équipe am dafa daal di daan Inter Milan foofu la ca dëkkam ci jongante nga xam moo doon dox seen diggante ñaari bal ci benn Kalidou Koulibaly moom itam ànd ak euh, Napoli daal dina qualifié ci nga xamante ni daal euh, moo di huitième de finale ñoom démb dañoo daal di daal ñi di waa Racing Genk di club Belgique lu tollook ñeenti bal euh, ci dara Kalidou Koulibaly jot naa football ba mu jeex waaye match googu ba mu jeexee kii di seen entraîneur di Ancelo di Ancelotti moom dañu tekki kon bokk nombal tànka maanaam dañ ko daal di limogé ci équipe boobule di Naples la ko waral nag moo di yi nga xamante ni jamono gi am nañ lu jëm ci seen championnat di Serie A bu Italie Idrissa Gana Gueye moom nag ànd ak ñi nga xam te ne ñu di waa euh, Paris Saint-Germain moom itam. dal nañu qualifié ci wàllu huitième de finale donte sax niki tay ji mom moom du daal di teewee jongante nga xamanté dal mom lañu nara am euh, ci lu jëm ci 6e ak dernière journée li di phase de groupe ci euh, li nga xamanté ni Ligue des champions Paris Saint-Germain 20h digganteem mak doomu Turquie di Galatasaray li dal di euh, club Bruges di équipe bu Crépin et ñoom ñom dañ tassé nga xamanté ne di waa Real Madrid fofu la ci Belgique ci bu 20h jotee 20h itam groupe B Olympiakos ak Étoile Rouge Belgrade dañ dal di tassé Tottenham mom dañ fekk Bayern Munich. nekk ca euh, dëkkam ci bu 20h jotee moo di choc lii di journée bi Shakhtar Donetsk di club Ukraine dana tase ñi di waa Atalanta ci bu 17h55 jotee noonu diggante Dinamo euh, Zagreb ak ñi di waa Manchester euh, City. ñu daal di wax ci fédération sénégalaise bu football mi nga xam tey jii da fas yéene kon bokk sargal euh, lii di équipe bu Sénégal yi nga xam ne dañoo daal di ràññeeku di équipe nationale U20 ak itam bitu soccer bi jàppale ni yëf yi danañ ko daal di amal ni ki tey yi si suba gi ci dalluwaay fédération sénégalaise bu football alaaji ñu daal di wax. ci mhm. leneen. leneen di Maroc bi am léegi complexe bu mucc ayib ci wàllum tàggat ñu def si nag ay milliards yu bëri. waaw milliards yu takku ci 40 milliards si suñu koppar la daal di euh, toll loolu nag euh, di mbir mi nga xamante ni def nañ ko ngir daal di inaugurer complexe Mohamed VI de seeg suñu ndaw ñu togal fofu ci diwaanu Maroc di Khadim Baye lu tollu ci témèr ak juroom fukki nekk lu ëpp ñetti téeméeri lal ñenti suite ak ñetti résidence ñu jagleel ko équipe nationale A U23 ak U17 complexe football Mohamed VI mom nak mi ngi juddu gannaaw bu nga xamee dañoo defaraat centre national Mamoura ñu tabaxoon ko ci ville sale jege loolu capitale bi di Rabat nekk na loo xam ni ëpp na sax structure sportive ndaxte kat ñi ngi ko tabax ci lu toll ci fanweeri hectare édifice bi mu nekk loo xam nañ ko mooñaaleeg xam-xam bu wóor tey nag nekk na loo xam ni dañu ko jagleel jëm ci wàllu tourisme ndaxte loole nee nañu mooy fexe bay wane sport Maroc ci àdduna bi yépp complexe bi nag am na lu toll ci juróom ñetti terrain ñeenti nekk gazon naturel am na piscine olympique am na ay cours tennis waaye du loolu kese ngir tabax lu ni mel Maroc depense na toll ci quarante milliards yu francais CFA édifice bi nag mi ngi bokk ci programme bu mag boo xam ni Maroc da ko teg ngir yasalaat ay stade lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñett yoo xam ni dañu koy yeesalaat moo xam ci gazon synthétique wala bokk ci gazon naturel lu ëpp ci juróom fukk ci téeméer boo jël ci liggéey bi daanaka yemb na. Khadim Mbaye Casablanca rajo Futur Media ñu koy gërëm moom Khadim Mbaye euh, Cheikh euh, gannaaw football ñu wax légui lu soxal wàllum basket ak tournoi montée première division Isaac sport euh, ak nak CMT bu Ziguinchor ñom nak ñoo jël ndam ni ci D2 bi. waaw CMT bu Ziguinchor ci walu jigéen ñi ñoom ni ki déwén dañuy di kon bok participer ci li nga xamanteni modi championnat première division bu basketball niki demb dal daal am ndam seen diggante ak ñi di wa INSEPS université Cheikh Anta Diop bu Dakar 61 à 5. 59 ñaar équipe sax da qualifié ci li nga xam euh, première division gannaaw bu ñexé ci walu euh, demi-finale non itam benen club ci walu góor ñi di ISEG mom itam dal dina euh, qualifié ci li nga xam première division ànd seeg bop gannaaw ba ñu amee ndam itam demb seen finale tournoi de montée en première division 65 à 30 pour équipe bi nga et modi moo final Sport finale bi nag ñu ko don amal niki démb ci Sadio Marius Ndiaye ci teway suñu ndaw di Abdoulaye Diop. feet gi teewoon na ci gradin yu stadium marisu Ndiaye ci final D2 diggante Isegsport ak bopp bile équipe ñu daal di koy dominer ca kartang bu njëkk ba ca mitang ba Isegsport rawee woon na bopp juróom-ñetti poñ bile domination étudiant yi wéyal ko ba arbitre ba di tas match ba mu rawee ko fanweeri poñ ak juróom coach bopp jàpp ni xale yi amatuñu woon motivation ginnaaw ba ñu yéegee ca d waroon ñëw parce que loolu la ñu mais bi ñu ñëwee ñoom dañu jékki-jékki bëgg a joué te ba loolu joué dañ koy préparé parce que ñoom ñoo waxoon ne ñu bàyyi leen ñu dem feet moo tax ñu ñëw toog di leen seetaan comme bon c'est c'est vrai que c'est des jeunes mais am nañu am tuuti maturité donc man jàppoon naa ne bu ñu ñëwee dinañu répondre présent ils l'ont fait en un seul carton mu nekk ñaari mbégte ci entraîneur Isaac Sport di El Hadji Diakhaté dañuy sant yàlla ndax euh, bopp joué woon nañu match pour ñu gagné ñu ñu tasewaat final sama équipe dañu manqué woon concentration mais ba ma waxee ñoom concentration et eh, woon naa bu concentré woo parce que bopp dafa nekk équipe boo xamante dañu agressif en défense il faut nga jouer ak sa bopp C'est mun na leen gën donc boo leen toppee si ñoom seen day indi leneen te looloo taxoon ñu perte si match poule final bu jigéen ñi nak CMT BC bu Sigicoor moo ko gagné juróom-benn fukk ak benn ci juróom fukk ak juróom-ñett ci kanamu jigéenu INSEPS yu Dakar. jërëjëf Abdoulaye Diop kon bokk alaaji fi lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram. jaajëf wéy ci xibaar yi yegg si léegi ci wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ànd ceeg Ndata Diop. dal leen ak jàmm Dakar Court di festival international bu ñu jagleel film yi ñu duppee court métrage ñoo ngi koy amal lu toll ci fukk ak benn ci ay film ñoom ñoo bokk ci jongante bi Oumou Diégane mangawon ma nga woon ca ba. ñaarelu édition festival international bu court métrage bu Dakar dorna réalisateur critique cinéma producteur ci gatal képp kuy yëngu ci 7e art téwé nako molikan di kenn ci ñu amal bile festival di ñu xamal luñ ci ragné ci lu bess ren dañuy delloo njukkal acteur yi ak actrice yi moo tax dina am ñaari prix pour réalisateur yi nga xam dañuy jongante ñaari prix ñu délo njukkal ñi nga xam tamit ñoy nek comédien ay comédiens yi nga xam ñooy jouer ci film yi te sans ñoom film du am. film court métrage nag daan ko siiwal ci ndakaaru lu toll si juróom-ñaari fan ik jazz di directeur gu ñu dénk wàllum cinématographie. film yu gàtt yi yu xale yi di def. lu am solo la parce que bépp xale bu ñuy tàggat ci wàllum cinéma lu mu wax njëkk a def lu mu wax bu bu dafa wax produire benn film et film boobu dafay nekk lu ndaw film euh, court métrage. muy ab initiative bu ministère de la culture et de la communication di rafetlu rafetlu mom ministère bobu di ci jaaree xamlé taxaway giñu nam ci langum cinéma bi Daouda fay di directeur cabinet bi. gis nañ ni vraiment événement bu am importance la. walu cinéma itam rek demb rek ministre de la culture et de la communication mom ak AFD signé nañu benn convention bo xam ne dina permettre ñu def étude pour réaliser la cité du cinéma. fuk ak benn court métrage daanu jongante ci bile festival daan fa joxe itam juróomi trophée ku ko xamlé di Euzan Pals Guirassy di présidente jury bi. wàllu théâtre ca la ñuy wax ak pièce congolaise bi ñu duppee la marmite de coca mbola te ki nga xam ni moom moo di Guy Menga fekk baax ca Congo daal di koy tëgg moom dinañ ko siiwal maanaam présente ko ni ki tey jii ci théâtre national danielle Sorano bu 6 heures tegalee fanweeri simili. Hugues Serge moom mooy directeur bu théâtre national bu république démocratique du Congo. le Sénégal c'est déjà un pays que je connais. Sénégal dëkk la boo xam ne xam naa ko bu baax ñëw naa fi ay yoon yu bëri am na sax ay dëkk yoo xam ne yu tourné naa fi bi ma xamee ne dama war a ñëw fii ci Sénégal ci laa laaj ñi nga xam ne ñoo théâtre national Daniel Sorano ndax mën nañ fa jouer pièce bii di la marmite de Kokambala bu Guy Mbemba ci la waaw may fàttali ne pièce boobu bokk na ci patrimoine classique bu Congo dugub bi nag amul fay dara. cadeau de fin d'année là ma jaglel ko domi Sénégal yi. c'est en fait euh, mon cadeau pour les fêtes de fin d'année. jagen jëf ci déglu bi fi la yam dig dajé ëllëg.